salaamaaleykum mbokk internet euh, igfm point sn tey dañoo mbégte kontaan tey ñëw euh, fii ci Jaxaaw ah nara fekk si euh, acteur wiri wiri yi nara waxtaan ak ñoom parce que xam nañ ne que namm ngeen leen donc tey dinañ leen ko indil ñu waxtaan ak yéen ndax si série bi day continuer wala fii lay yam wala dañ leen di indil leneen lu bees donc ñu commencé ko si ki nga xamante ne moom la ñuy wax MC ki nekkatul koo xam ne dañ koy présenté ndax def na lu dooy waax ci série bi donc tey occasion la ñu indil ak yéen tey da ngeen xam MC lan lay def en dehors de la MC ci nuyoo wala ka internet yi lay waaw salaamaaleykum gars yi may seetaan maa ngi leen di ziar ku ci nekk sa tur sa sant wax leen mi MC ngi nii demul fenn nag MC ngi nii waaw. Euh, MC nan la def ba dugg ci série Wiri waaw lu ma dugg ci série bi laaj nga ma nag lu am importance lu ma dugal ci série bi man ba may ànd ak gars du tey bañ daan dox ay kilomètres ma yenu sabar cóol xam nga cóol ni mu diisee ma daan yenu sa fu ñu dem. des fois saa neex bu yore ndeer gi di tëgg man maa yor cóol mi ci gannaaw di ko tulli yaa ngi dégg ñuy ànd fu nekk di dox demandoo nañ tournée nationale grand yi amul fu ma àndul ak ñoom daal ay semaine de la jeunesse tout ànd na ak ñoom fu nekk wax dëgg yàlla je théâtre bu ñu maa ngi ci mais nag peut-être fii la ko yàlla tuddee parce que ku ci nekk li naan nit amoo lu dul sa bis man wiiri wiiri sama wiiri wiiri non. man ba mag sawaay ne man maay yaay MC Babacar Fall léegi yaay doon gardien Cheikh Ndiaye ma ne ko Aziz jox ngeen mu lu ma mën parce que gardien dafa di loo xamante ni lu ngay dund ak ñi nii la quoi parce que il suffit que ñëw nga ñëw ci benn société yem ci gardien bi lam lay posé nga koy posé lu lu lu mu laaj nga jox ko ko wala dëgg. sa sa tournoi kii mooy dan bu mujj bi. parce que man man fi mu toll nii damaa namaat xeex waaw damaa namaat xeex bi non Pezora wu lan Pezora man la teg ma nit parce que ba ma ko woowee keroog ci xeex gis nga ba jox ko main pour af pour dóor ko main droite dafa négocier ak man mu leer ko tey indiw ma lu dul combat. yow man xoola ku féetee kaw.

sumbulu day yor saak bul xam lu ciy def ñëw ni ma MC yow laa wóolu kaay dencal ma ko billaahi ma téye ko kaay dencal ma ko ma téye ko sumbulu valisam sax maa koy ibbi man kooku loolu am na foo xam ne bu la fa nit tegu du la ko defal ana yow ana man ngeen ñëw def nii yombut te en plus daf ci jàpp bu baax a baax daf ma jàppale mook jabaru naa Say dan ma jàppale bu ma doon ñooy sam ménagère parce que bu ma ñëwee dama naa ko mais madame doo ménager mu ne ma si xaaral rek am na lu ma jot a def jabaru Cheikhouna ñoo ngi déggoo ci yoo xamante ni moom Cheikhouna sax du ko xam ku xoola ku bëri sutura ngoog say na bu caw ma koy ñaanal rek ni ko xoola yow dara du met sa àdduna parce que man Babacar ku ma ñaanal rek sa affaire day baax ci kàttum suñu boroom sama. Mhm. bi. moom man ni ma gën a neex mooy bu ñu toogee euh, di partager ma grand yi dañuy toog ni ma grand yi comme ay moroom lu garaaw Cheikh Ndiaye man bu ma koy tooñ bund laa koy wax te bund surnom boo xam ne kenn xamul ko. seexu naa bu ma koy woo téléphone sax mu ne ko waa mbuul xam nga loolu saa neex waa njool ah mais barki dem amul lu ma waxul ci télé bi boobu maa ngi jóge ci yoon Dakar mais sama téléphone day sonné amul la saa neex bàyyul parce que damaa fekk buntu jàmbur mbëkk ko sama jébi neex taay toj gis nga mandarga wiiri wiiri mais sant yàlla fekk ay buntu vert xoola yaakaar ni yoon la uy ma dem dug sembentang sa benn salam alaykum ndekete xola wéré la mbëkk wéré la mbëkk sun fini taf bu fekk na ñu tourner ba sonu wéré ni taf mi xola bi gaay di wax man len man def ndànk sant yalla sant yalla mënu na gëna a ñaaw parce que boobu tourner nañ bay waagi ñibi mani ñu faté barada kasse ak chargeur xoma kan ma dem di jëli ak sa moto mais ba mënu won ñak quoi parce que boobu MC gi MC MC MC boobu MC rey na ñëpp dégg nga boobu MC wàcce na ñëpp bi léegi ñu ne dañoo ree ba mu d'accord loolu daf ma neex maa ngi sant yàlla bu baax ndax nit a génn télé chaque jour te kenn ràññewu ko kenn faalewu ko man MC may am samay quarante cinq secondes samay une minute. booy damay génn léegi sax mi naan MC xotti sa pain deet xam nga loolu. mais voilà bi àggut sax bi muy daw ci série bi matul mais liñ ci jot a for fi mu toll nii non laq na dëkk bi nga naan lan fii damay génn keroog damay dem Tivaouane man chaque vendredi presque Tivaouane laay jullee jumaa dugg kër sëñ kër ziar ñibbi. loolu dama and ak sam ben copain ñu yor moto dem Tivaouane dañuy dem ba xoma ñaxat ñaxat xol lu graw gis boy def rang boy wàcc école une heure maa bi def rang jékki-jékki wala MC xotti sa pain deet xotti sa pain deet xotti sa pain bu xote ko ma ñawal la ko ma jek jek ni sama copain bi deug sa tank yaa ngi mu deug tankam boy di woy si affaire bi non ma jek jékki dindi muuraay gi ma muuru won ni len boy na ngeen def boy ni wuy yaay mc si daw topp ma rek ma nekk sa waay jubale Tiwaawan jubale Tiwaawan rek ñu dem xam lolu plaisir la bo xamanteni ken kenn fu mu waxe mais toujours rek sante yalla sante yalla bu baax sante na yalla bu baax a baax te série bi heure bu dawee ba seexu def ben bêtise Tiwaawan wa kër gi ñom soxna Kala. directement la may woo maire yi nga xam ne ñëpp leen di sukkal di leen raamal loolu yombul directement lan may woo MC seexu naa war naa def lii m MC kër gi boo fa defee lii ak lee MC mais MC yow lan la mujj gi man leen waaye maire lii série la rek mujj gi xoolal ñu naan waa baax na coupé seen téléphone parce que ñit dañuy dund série bi tellement que ah non sant yàlla daal wax dëgg yàlla macha allah sant yàlla bu baax te dina gën a baax bu soobee yàlla gars yi mënuñu lii rek. se relevant foo nat mën nañ ko mais doo ko xam ci ñun parce que ñun bu nekkee yow dañuy partager ak yow dañuy dund ni sunu koñ bi ñun dañuy fubal nawetaanoo nawetaan fubal naa ko ci àdduna maa ngi nii nawetaanoo na te attaquant là je marque des pour muy leer je marque des buts man mi sa sa sama jang ndax théâtre bi may ay yow it ay yow xala yow xala man nga dàq école de théâtre. déggoo ma la bañ may dak bañ may dak sama nijaay lan ma boole dam sen moy way aju ko mba tàkko ño bok ben keur dend benn néeg tok ay fan jang siw yaangi deg gaay di ma kalamé di ma kalamé te prof ya ma yoroon bëggoon nañ ma bëgg go xamanteni ha ah buñ ma gisulé sax duñ ma bind absent duñ ma bind dara parce que dan ma daan woo may bégal seen doom parce que boobu ay médaille beeg làmb jee ngi daw comprendre ay bala may sax xam nga loolu plaisir la ci ñoom ak seen njaboot sama yaay toog ay fan dégguma ma jàngi mooy mu xëy ni daam seen complot daam seen ne ko boo xëy yóbbu ko seen école nga xool lu mu lu mu defati parce que man grand yi rek laa daan topp nag daaw mu te dan ma daan wax ni MC Babacar bul toog bul naan bul def dara ñun boo bëggee ànd ak ñun fokk nga lu sit correct normal di sañse mën a nekk ak ñun dama def ci man lu bari dan ma yar dan ma yar ñu dem ba école ba fekk fa Moussa Mbaye Moussa mbay ni xool kaye bi ñu xool sam bulletin gis ci xoola bi ma composition yi am na yoo xam ne sax moom ma fekk Linguère <laughs> bii bu ci nekk bisam xam naa ko de bii Linguère bii Saint-Louis bii Gossas fekk ñu war a dem tournée nationale mais bu ma demee Moussa Mbaye nit daam seen kii composé wul mais moins neuf et quelques heures mais jànkat kii luñ ko bindal exécuté ko ah daam <laughs> seen wala bind ni ah, dàq nañ ko wax a wax a wax wax a wax ak daam mënee wax ñu ni ko xoola kii mënut fee jàngee parce que kii kii dañoo lëjal après nag par la suite daam ñëw gàlle ndekete net di ko nettali mère mais nettali na ko sama yaay mujj gi mu ni ah comme comme bëggul jàng léegi kañ koy dugal mën sama ci laa ñëwee nag miinanteeg grand yi waaw miinanteeg grand yi sans sauvegarde bu saa neex di tëgg buy tëgg ndeer gi ma yor cool mi di ko mbës ci gannaaw ndax man géwél laa dama mën tëgg sawar fi mu toll nii bu ma tëgguloon tëggaloon tey bu ma neexoon dégg nga fecc fii te doo ko yëg dégg nga ma léegi nag ñu ñëw sama yaay expliqué affaire yooyu sama yaay ñëw ba ci kër gi fekk seexu naa toog sama yaay keroog elle a pleuré dafa jooy ni bëgguma mu théâtre na jàng génération génération ñoom bay dosi waruma fi woon bàyyi parce que boobu fekk na ñu commencé médaille bi askan laaw bi comprendre mooy joué bu ci nekk ma ci am rôle mais sant yàlla parce que li tubaab naan chaque à son tour chez le coiffeur léegi nag sama tour a ngi nii dama ko gérer ba mu mat ci kàttanu yàlla. donc séquence bu may dajji parce que bi ma Cheikh Ndiaye convoqué ci biir kër gi bi mu naan ma MC yow kër gi ñaata nit a fi nekk ñaata góor a fi nekk ma ne pat rek parce que xam naa ne ñaar fa nekk duma ko bàyyi parce que boobu. maa ngi koy jàng moom moom jikkoy innocent laa koy génneel dama koy officiel indo dawal kaboy sa waay di wax wala mu ne ko nii rek di ko jaay boobu maa ngi koy jàng moom mu wax a wax a a wax ba pare ni ma léegi yow MC bi seexu naa dugg kër gi foo nekkoon xam nga boobu xaw ma fu ma nekk ma ne pat mu ne persora bi muy bëgg a rey safa jabar foo nekkoon ma ni pat ci la jékki-jékki ni ma yow ba ma lay for ci àll bi loo ma waxoon MC Karaté Ka nga ma ne ko waaw parce que boobu mënatuma mim quoi ma ne ko waaw mu ni ma dem si yow lii karaté gi nga jàng fu ma lay feeñ ma ko monsieur man Karaté Ka laa woon comprendre man man sama ceinture sama saak ma bàyyi te boobu bu ma ne woon indi ceinture ah moo taw tayukaay ba laay ñëw def sama ndig xool taxaw déggoo ma de parce que nee naa bi mu pare. dama woo femme bi ndànk femme bi liggéey ci kër gi ni ko tegal ma seen morso tayukaay bi rek ba mu convoqué ma àdduna dina yëngu eh mu ne ma si ah kon yaa ngi yaa ngi karaate man ko monsieur man maa ko wax man ma MC ban ceinture nga man ko man ceinture noire la dan parce que looy def te amoo fi doo dem quoi bu dee dëgg man ko ceinture noire la première dan cinquième dan mun ma ah léegi ñii bi ñu toj kër gi foo nekkoon ma ne ko monsieur rek commencé ko indi ay jooy parce que moom xaw ma lu may ton xam nga booy wax lu dul dëgg yàlla du faral yàlla du faral ku kuy kuy mbiib yaa dégg léegi mu ni ma léegi ana karaté nga jàng man ko monsieur man maa jàng chaque jur maa ngi entraîné mu ni ma MC chaque jour yaa ngi entraîné yow nga ni da ngaa jàng karaté naan chaque jour yaa ngi entraîné man ne ko may mais man damay réflexionné damaa bëgg a jàppaat mu ni ma MC ngeen lan man ne ko damay réflexionné ndekete man toj naa dëkk bi yaa ngi dégg damay réflexionné dama waroon wax da damay perfectionné juum ni damay réflexionné voilà gars yi bàyyi ma ci biir ku ci nekk damay réflexionné damay réflexionné man j'avais mal compris man xam nga kañ laay comprendre man chaque jour bu subaa bu sëri bi dawee bu ci ëllëg sa Je comprendre parce que nous, sommes corrigés. corriger parce que que ça est ce que je suis Marseille Je ne ko Marseille du équipe de ndekete suis là, naa faute boo xamante ni ah Je mënu ko arranger Je ma yow Marseille ne ko non Marseille du sama équipe parce que je suis bëgg je ba nga la Marseille c'est national France Je ne ko non Je non mënu xam rab de temps te ma laa may li ma wax ak Zouzou rek xam nga Soumboulou dafa bëgg jooy yaa ngi dégg ba tax ni Soumboulou bu may ibbi bunt bi sax boo seetlu day jooy Soumboulou bu ma koy reetaan sax day jooy mosuma gis non Soumboulou bari na rangoñ torop ma toog inspiré wu ci série bi seexu naa ni ma MC Sow bu ngi inspiré rab boo xamante ni fi mu toll moo topp série bi mais rab bi fi mu toll nii voilà ragaluma ci kenn. man maa def sama scénario bopp ah bind sama rab di ko comp nu ma neexee te benn bii leen gis leen gis beneen du ma naan sumbala ba jaay ana la di jaay sumbala ba jaay ana ana la di jaay sumbala ba jaay ana la di jaay sambolo ba jaay ana ana la di jaay MC Passy moo fi ñëwoon di la bégal moom di la wayal surum le ba jolli jumping surum le ba jolli jumping lu ko fi jar madame lu ko fi jar sumbulu ma di la laaj lu ko fi jar lu a jooyi war a jooyi sumbulu ma di la laaj lu war a jooyi après ci laa ko xam nga bi ñu koy jàpp euh, police di ko indi di ko manote loolu dama ci fent lu garaaw ma ni ko madam li la daloon nattu yàlla la nattu du wees ci ku mu mën a doon bul tit bul ragal madam jàmm ngay am yàllaay xool ki ko neex mu teg ko ay nattu est dégg nga ma parce que la mu jànkonte ci série bi yombul ko koy jànkoonteel ma ñëw ci Jojo ni ko Jojo bis ni ki tey tuddee naa la Jojo jàmbaar lu metti yàggul muse yaay sama jàmbaar bul tit bul ragal mu im si may sa garde corps ku la bëgg a faat foo mu jaar ci sa garde corps mu defal la bagage te man xam nga damay defalaate bagage dama ay ci gars yi. Ah. <laughs> internet IGFM ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi nekkoon nag ki nga xamante ni yaa moo di MC MC jërëjëf. waaw yi di sant ñëpp di gërëm sama waa kër di gërëm Cheikhouna sama waay du ma ni sama ne sama xarit parce grand yi xam naa fi fi ñu toll ci man xam naa fi ma toll ci ñoom di sant rek parce que ku lim juum dañuy bañ a juum ndax ci ci bêtise laa dëkk. MC avec MC jusqu'à la mort MC avec MC jusqu'à la mort MC avec MC jusqu'à la mort. xotti sa peew. xotti sa peew. xotti sa peew bu xottee the joy, Madam Bailey joy, and I love the joy. Madam Bailey joy, and I, and I love the joy. MC Sagar came up in your one. Dila Begel, Mom Dila Wayal. Srum Leva Jolly, jumping dance. Srum Leva Jolly, jumping dance. Madam, look of Vijar, look of Vijar. Sumuluma Dila Lai. jaar lu waral jooy yi lu waral jooy yi di la laaj lu ko jar madame li la dolloon nattu yàlla la nattu du wees ci ku mu mën a doon bul tit ragal madame jàmm ngay am yàlla xool ki mu teg ay nattu programme MC l'ami, l'ami, l'ami des jeunes filles un homme des garçons eh. bis ni naa la Jojo jàmbaar lu métti yàggul monsieur ya sama jàmbaar bul tiit bul ragal man MC Massa garde corps ku la faat faw ma ci garde corps mu defal la bagage Susan ba yaay sama xarit yaay sama xarit su ma jëndee ginaar may la xol bi yaay sama xarit Susan.